ngi leen di nuyu yéen sunu bokki taskatu xibaar yi waaye sunu kàddu gi ñoo ngi ciy jiital nuyu borom dëkk bi di Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak njabootu Serigne Touba gépp di sant Serigne Khadim Ngom mi nga xam ne moo doon leeral mbir mi yaakaar naa ne indi na cosaanu mbir mi indi na sabab bi muy feeñu foto yi indi na itam ndigal li nga xam ne moom la Serigne Mountakha joxe indi na itam yi nekk ci sunu kanam te muy ay jéego yu ñu war a dox loolu nag macha allah sunu borom def na tawféex ba tàmbali nañu liggéey bi bu baax te sóobu nañ ci ndax ndigal lu yomb a jëfe la ndigal rek a jafe waaye jëfe ko moom lu yomb la te am nañu ndigal euh, Cheikh du muntaxaa nag day jëm joo xam ne. yaakaar naa ne ñun murit war nañu gën a amaat ci moom taxawaay war nañoo gën a jaajuwaat taxaw wan ko ne ko jekk nañ ci loo digle ñu ne ca loo tere loola kenn bañ ñu ca séen mu woote woote liggéey bu rëy nag boo xam ne ndigalu Serigne Touba woon muy université bi fekkoon sëñ Serigne Fantamaadi itam ci xelam mu rafet ak yitteem ju kawe jàppoon ne Touba mënta am. te du am kërug barkeelu ñaar yitte yooyu daje nag kërug barkeelu bi tàbb ci biir université bi sunu borom itam def feeñuk photo yi nekk un élément déclencheur très important mooy kat niñ ko indee rek ci contexte covid bi feeñ na àddina sépp jaaxle ku ne di wut foo jëm mu mel ni sëñ Tuubaa danoo jubloo dalal won nu boppam ci contexte boo xam ne moom ci boppam daa meloon ne ku nekk en résidence surveillée ba noppi di inaugurer un un événement heureux muy tegu xeeru jumaay njarim kon nun war na noo dalal sunu xel fii nag fi la sëñ Muntaxa waxee woon kilifa gu ko seet si ci jamono joo xam ne réew mi dafa jaxasoo woon ne ko fu ne mën naa am jafe-jafe ñu nekk mën nañoo jaaxle ba mu des fii ci senegal ndax ñun de amoon nañ solution bu yàgg baat boobu la jëfandikoo te mooy sëriñ Touba sëriñ Touba la wax ne mooy solution bi sëriñ tubaa itam la wax ne wane ko mooy liggéey bi gën a kawe ndax nee na bu ko nit ñi xamee rek toppi seen borom te nit ñi kat bi leen seen borom di indi fii leen dong la bëggoon ñu nekk ci mooy di ko jaamu ñun nag gànjar bu rëy bii ñu am muy Serigne Touba. di tawféex juree joo xam ne gis nañu suuf si mu génnee ci ay dëkk yoo xam ne yu ñàkk solo la muy pétrole muy gaz ñooña di dund ba mel ni àjjana la nit ña liggéeyatuñu ña fa dëkk nekk ci jàmm kon bu ñu amee gànjar gu toll ni sëriñ Touba mu wooñu ci loo xam ne ku ko ci wuyu si am texe àddina ak alaaxira ñun kenn ëpp ñu ab liggéey ndax alaaxira nit ñi sóoraaleetuñu ko te mooy kër ga dëgg kon man li tax may wax mooy ndawi Tuubaa yi ndawi yoonu murit ci woote màggal gii rek Sëriñ Muntaxa soññ na ndaw ñi ngir ñu jóg jël seeni responsabilité ci liggéeyu Sëriñ Tuubaa bi jël seeni responsabilité ci dëkk bi kon na ndaw ñu jógaat jaarale ko ci li nga xam ne moo ëpp ci li ñuy jëfandikoo muy daayira yi takkatoo ci ginnaaw kilifa yi nga xam ne ñooy rakki Cheikh Mouhamadou Mountakha yi ñoom ñu bootu ci kanamam mu nekk loo xam ne organisation pyramidale la saa bu waxee benn baat baat boobu kilifa gu ko dégg saraako ko jëwrinu daayira bu ko dégg saraako lu mu gën a yaatu gën a doon sunu njariñ ñun tey ak ëllëg nanu góorgóorlu ci wane Serigne Touba nañu góorgóorlu ci tàmbalee ko ci sunu jëmmi bopp mel ni sëriñ bi bëgg tënku ci ndigal bu wóor nekk ci jaamu yàlla gu wér te loolu moo tax sëriñ tubaa ñëw fi noonu rekk lañu mën a xettalee jamono jaxasoo na jàmm amul fenn fitna si yaatu na dëkki lislaam yi gis ngeen fitna sa fa xew waxuma la ak yeneen dëkk crise de valeur am na nit ñi xam ngeen bu baax li ñuy dund ci jamono jii daanaka tuutee dox seen diggante ak yor melow rabu àll kon warees na leen delloowaat ci melo wa nga xam ne moo taxoon sunu borom bëgg ñu wàcc fi te mooy jaamu ko jaamu gu sell sëriñ tubaa nag loolu rekk la solution jën koo jëfandikoogul nag parce que xam ngeen ne réew mi mi ngi ci situation boo xam ne ku ko xool xam ne li mu indi buñ ci tàbbee dinañu am texeeg tey ak ëllëg solution bi mooy sëriñ tubaa naka la doonee solution loolu du 2 au 5 dinañu am ay borom xam-xam yu daje waxtaan leeral ko nit ñi mu nekk programme boo xam ni réew mi dinañu ko jëfandikoo naka la doonee solution mooy bu xelu doomu aadama demee ba ne ndax yàlla am na kon amul keneen ku dul yàlla ku nu mën a sikki sàkk ak nekkam moo tax jeexiti sëriñ Tuubaa yi li ñuy wax relique ci tubaab muy barkeelu daa bokk ci li nga xam ne day dëggal nekkuk sëriñ Tuubaa ndax yàlla moom lu dul jëfam lu dul jëmmam rek jëfam la te jëfam jooju mooy dëggal ak nekkam waaye sëriñ bi nekkoon na bu wér te firnde bi ci jëkk mooy li Cheikh Mouhamadou Mourtada Mbacké def ci Amérique fañ waxoon ne sëriñ Touba daa des ci géej gi ba mu fa demee ci jëmmam yóbbu fa carte di am la ñu xam ne kat sëriñ Touba kon desul ci géej gi te laaj yépp dina dikk est-ce que kii ngeen di wax ne nekkoon na fi moo sañ ci dëkk bi amoon na lan moo ciy dëgg lan moo ci li tubaab di wax légende lan ngeen ci yokkute bokku ci te loolu kat barkeelu yi rek ñoo ko mën a leeral ñoo ko mën a dëggal tàmbalee ko ci lim bind ci xalimaam ak melo wi mu bëgg murit mel ko ak lim jëf loola luñ ci saytu feeñal ko day gën doon njariñ ci ñun bokk na ci it li nga xam ne am na solo trop mooy muccug barkeelu yi ndax li ne ci kër yi léeg-léeg mu doon wërsëku janax wala kaña ndax deñ ci jafe te at yi tàmbalee bari yooyu yëpp bu ñëwee ci këru barkeelu gi dana doon loo xam ne murit bu ne dina ci mën a tëg bëtam bu loxoom jegee mu laal ko xam ne sëriñam bii moo moomoon dàll yi moo bindoon lii ci loxo boppam moo yoroon kaala gi te sëriñ bi daf ñoo sas beneen liggéey mooy saytu jeexiti sëriñ bi fu mën a nekk ci àddina ndax kii doon expliquer dundam ak dajeem ak sëriñ tubaa du kenn kepp mbooloo mu bari la fii Sénégal Gabon Côte d'Ivoire fu ci ne fu Serigne Touba jaar Guinée am na ñu mu dajeel am na ñu jëflanteeg moom am na ñu waxanteeg moom ba ci moritani am na lu mu bind bàyyi fa kon day jaadu loolu lépp ñu am taxawaay bi nga xam ne moo war ngir saytu ko lu ci mën a ñibbisi ñibbisi luñ ci mën a toppatoo ba mu nekk patrimoine bu ñu sécuriser ñu def ko alhamdulilahi rabil alamin loolu état bi lim ci war a taxawee def na ko ba mu mat sëkk ndax ministre bi nga xam ne mooy ministre de la culture ya mu war a toppatoo ba lépp loo xam ne bokkati na ci sëñ Touba ñu mën koo sécuriser loola état bi def na ci taxawaayam ba mu mat sëkk ñu ngi ko ciy sant ñoo ngi woo itam mbooleem kilifay yoon wi muy fii ci Touba muy Ndakaaru jëwrin mbakk yu fay ak mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoo ngi ndakaaru ak daayira yi ak jàngkatu xasida yi ak ndaw ñi universitaire yi surtout ñi nga xam ne curiosité intellectuelle képp leen tax a jóg ñooñu la ñu gën a soxla ñu ngi wooy taskatu xibaar yi bu baax rawatina yi dëkk fii ci Touba ndax seen taxawaay mooy ñoom li ëpp ci seen liggéey gànjar gii di Serigne Touba moo koy waral kon ñoo ngi leen ciy woo woow boo xam ne dañu bëgg ngeen teewe Pastef pas professionnalisme kese ngeen def ci seen xol def ci seen yitte ba fii ngeen nekk di liggéey ëllëg kenn ku ne bëgg fi ñëw daje feeg yéen def fi un documentaire def fi lu ne ngir bëgg a xam li coow li am fi mu amee ki ko amal ki ko waral kan la te laaj boobu ku ne war na ci mën a tontu kan mooy sëñ Tuubaa ndax amoon na fan la dëkk ndax amoon na fi njaboot lan la woote woon ndax sëriñ Muntaxa li mu wax dafa leer de jaam ñi la wax génnewu ci kenn nee na leen rekk moo leen mën a sowe mooy xam sëriñ bi kon na ndaw ñu jóg xam seen responsabilité ci wane sëñ Tuubaa surtout ñoom ànd ko kilifa yi nag ndax lépp daa war a tënku ci digal murit mënta jëf te amul digal li ci des mooy taxawal kër gi ci boppam këru këru këru këru këru barkeelu yi loolu jëf moo ko man te jëf li ci jiitu mooy borom wërsëg yi nga xam ne ñoom yàlla may na leen ko wax naa leen ne leen àddina ñi ci ëpp wërsëg dañuy créer ay fondation ak ay organisation non gouvernementale di yëngu ci li ñuy wax philanthropie te li ci def li ci ëpp jublu la boo xam ne daanaka day yàq société kon ñi ko yàlla may ci sun biir may leen wërsëg wu bari wi may ñenn ñi xam-xam war nañu daje ci ay projet yoo xam ne Serigne Touba tëraloon na ko ngir jëmmal luy defar société tey ak ëllëg université bi am na solo trop rëy na lool ndax musée bi dolleeku na ci Kanzil Kitab dolleeku na ci am na këru xasida nañu séentu leneen ndax liggéey la buy dox boo xam ne taxawul ñi nga xam ne dañ cee war a nekkit war a yaatu dënn war a yaatal war ubbi seeni xel xam ne façon bu ne dina dikk loolu nag yàlla na amee ci taxawaayu Cheikh Mamadou Mountakha yàlla na amee ci njiitam yàlla na ko sëriñ tubaa loolu muy wax naan mbiru sëñ tubaa li ciy feeñ li ci xaj rek lu ci xaj moom ci ak nekkam yàlla na ci sëñ tubaa xaj xajal mbiram ci di ko feeñal ba mu surcharge sëñ Xaadim wax nga dëgg photo bi njëkk a feeñ dañ daan wax sëñ Omar Ba bu ko bu ko bu ko bu ko sëñ Cheikh tijaan si daan tudd da daan wax moom sëñ Abdou ndax ni ñu demee woon ci wàllu archive ak recherche photo bi bi ñu ko indilee sëñ Abdou Lahad nañu ko wan soxna Faati Jaxate sunu maam waaye ni ko authentifié du ay wax dafa dafa tàggook sagoom rek ñu xam ne mooma lii itam ñoom sëñ Xaadim ñii indi woon photo bi keroog bi ñu gisee melo wi sëñ Muntaxa mel ba war ma nett liw ko ndax mbégte ak xaal ju mu amee xam nañ ni kii borom Tuubaa la ku xool nag jëmm ji toog xool jëmm ji taxaw ci jamono jooju 1918 ku ñemee làng ko tubaab sax yenduwul ci réew mi nga kaalaw ba jekk bëgg ba muuñ bi danga koy sentir ci bët yi boot say yoxo mbooloo mi la wër ñépp def tànki neen kooku boroom tubaa képp la mën a doon manta doon keneen mooma te sunu xéewal la te waxoon na maam Cheikh Anta keroog bi muy wàcc ci gaal gi Cheikh toppi leen sama mboor du ngeen ci gis mukk lu leen di rusloo mboorum sëriñ tubaa duñ ci gis mukk lu ñuy kersal duñ ci gis mukk lu ñuy rusloo lu dul lu ko yëkkati di ko màggal ndax li ko boroomam jaral te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaral ko ko loolu rek moo waral sunu taxawaay bi waral sunu liggéey bi ñoo ngi ñaan nag ñi ko jiite ñépp sunu borom kàttanal leen te wéral leen ba fu ñu ko bëgg a yóbbu rek ñu yóbbu ko fu kawe njort asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.